bisimilah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay ñëpp di nuyu son excellence président Bassirou Diomaye Faye di nuyu le premier ministre Ousmane Sonko nuyu kilifa diine yi si réew mi yëpp ak kilifa aada yi euh, <coughs> waaw ñu ngi dellu si waat rek di. Euh, toujours par rapport ak actualité bi di joxe sunu commentaire en tant que sénégalais euh, bëggoon na waxtaan ci mbir bu garaaw mbir boo xamante ni doy na waar te maa ngi seetlu ni ñenn ñi ñu koy jëlee à la légère muy mbiru ñi nga xam ni. dañuy wax ne dañ leen a jàpp fële euh, euh, Libi ay sénégalais yi demoon Libi fa euh, lettre falsifié signature le président le premier du Sénégal pour dem am audience nga Benghazi lañ fa doon def nak ak li waraloon ñu def falsification bobu lolu xamna lañuy xaar ñi nga xamanteni ni ñoom autorité yi ñu leeral ci askan bi mais benen bir bu ci gëna doy war encore wala loo xamante ne nii jar duñ suluñu ko ci par rapport ak mbir momu moy ñi nga xamanteni ñoom def ñan lañu te man <clears throat> li nga xamanteni moy commentaire bu ma ci indi ci loolu la koy accès ñi nga xamanteni te ne ñoo demone falsifier li nga xamanteni moy cacher premier ministre bi pour dem fa li nga Benghazi ñan lañu kan moko ko def. je pense que problème bi ni buñ ko bëggé résoudre wala ñu am ci lu lèr ci loolu lañu wara taxaw parce que nekul ay sénégalais lambda rek yo xamanteni ay sénégalais lañ rek. Nous avons jafe ci désert bi wala ay sénégalais ont été ñoo la libi pour dem protection parce que du sommes du sénégalais yooyu ñi nga Libye ne libi falsifié euh, signature premier ministre n'importe quel sénégalais. ay nit lañ yoo xamante ne nii dañoo doonoon ay autorité ci dëkk bi ba pare bokkoon fi nga xamante ne moom mooy parti APR loolu benn mbir la ci beneen bi mooy boo seetloo ñi nga xamante ne ñoom lañ jàpp ne ñoom ñoo falsifié euh, signature président Ousmane Sonko wala nit ñi nga xamante ñoom ñoo def loolu danga nga ci seetlu benn xeet dina ci ñew li tax ma wax lolu dina ci ñew parce que mbir mi man je pense que grawna na amna ben genre gravité bo xamanteni ni waruñu ko jël à la légère pour ñi nga xamanteni ni amna am ñuy comprendre ci enjeu yi nga xamanteni mo am ci sous région bi waruñu ko jël à la légère waye mais bala lolu amna lo xamanteni tam aussi man bëggon nako ko souligner ci ay mbir yi nga xamante ne jamono bi ñu mi ngi xew ci réew mi Sénégal nañ leen xoolaat sunu bopp nañu leen xoolaat sunu bopp nañu leen xoolaat sunu doxalin nañu leen xoolaat façon bi nga xamante ne nii nga ñoo koy doxalee nañu leen def attention ci fi nga xamante ne fi la Sénégal jëm Sénégal mi ngi jëm fu doy waar nit ñi ci xel damay wax ni du sax. mbirum falsification signature bi seen yenn sénégalais jël yóbbu ko fële nga xamante ne mooy Égypte mooy mooy Libye hmm? mais c'est par rapport ak problème mu ñaar ñi nga xamantene ne rey nañ leen mooy meurtre yooyu nga xamantene amna Pikine double meurtre bi am Pikine dafa am lu mu feñal en fait dama xamul ndax nit ñi ñu ngi koy bàyyi xel mais amna lu mo xamantene ni feñal nako ci réew mi ci ben genre yoon bo xamantene ni nii sénégalais yi jël nañ ko muy doon yoon bu bono bono bono bono bon mu doon lu ñaaw mu doon lu salte dama xamul ndax nit ñi ñu ngi koy bàyyi xel mais non seulement <clears throat> nit ñenn ñi nekkee en fait di su ma ko mënee waxee noonu mooy lekk médd parce que daf see feeñ ci mbiru ñaari sénégalais yi nga xamante ne rey nañ leen fële nga xamante ne mooy Pikine dafa am benn affaire bu mu révélé muy benn genre espèce yu yoon boo xamante ne yenn ci sénégalais jël nañ ko wala Sénégal mu ngi fay jëm te doonul loo xamante ne ni lu baax la ci réew doonul loo xamante ne lu baax la ci génération yi nga xamante ne ñun ñoo la ñun ñoo am responsabilité préparer leen dégg nga tàggat leen ci ay jikko yu baax dégg nga ci ay melokaan yu baax ci ay valeur pour ñu war pour suba buñ toogee ci réew mi mën a maanaam ñàkk réew mi mën a doxal réew mi comme ni nga xamante ne moom la suñuy diine bëgg moom la suñuy aada bëgg parce que man li ma seetlu mooy ñii nga xamante ne ñoom la ñu faat fële ci Pikine dafa am ay sénégalais yu leen tiim di leen di maanaam di leen lekk parce que loolu rek la mën a maanaam loolu rek loolu la ñu daal wala bokk loolu la doon en fait ci boppam. soi-disant ay influenceurs lañu soi-disant ay tiktokers lañu. soi-disant c'est-à-dire ay nit lañ yoo xamante ne nii voilà ay ay influenceur la mais loolu nekkul influenceur loolu du doon influenceur loolu dafa am benn genre jikko bu bon bu mu wane ni maanaam bu nekk ci sénégalais koo xamante ne nii kenn xamu ko woon muy dund mais tey daanaka mën nañu wax ni yénanti la maanaam sénégalais jël nañ ko def ko yénanti mais au-delà loolu yëpp dafa am ñoo xamante ni dañuy sukkandiku ci deewu jàmbur. pour di ci am alal di ci am maanaam notoriété di ci wut maanaam li nga xamante ne moom mooy célébrité loolu lu garaaw la lu garaaw la lu ñaaw la dama je pense que ñu bëri c'est-à-dire loolu lu jar a taxaw la lu jar a taxaw lu jar a dénoncé la en fait néew bi soxlawul lu dul noppalu bàyyi ñu xel ay waa seeni waajur bàyyi ñu xel ay mbokk seen i mbokk yi nga xamante tay ji ñu ngi ci nakar bu metti metti metti mais ñu ngi leen di jël en fait di leen utiliser pour am ay abonnés ñi di ci wut ay ay xaalis ah parce que en fait loolu mo xew mu nekk lu ñaawa ñaawa ñaaw lo ñaaw ni franchement dañ leen xoolaat suñu bop ñun sénégalais yi bu ñu demee bay jël néew di ci wut alal. bu ñu demee bay jël ay nit yoo xamante ni cest à dañoo génn àdduna ak si façon bi ñu génne àdduna mu nekk lu diis gann ci seen i mbokk mu nekk lu di lu maanaam lu doy ci réew mi ay nit maanaam en dépit de toute empathie en fait en fait amuñu benn empathie en fait lu dul tiim néew yooyu en fait di leen dundee parce que loolu moo xew ñii ma gis si internet bi ñu jël doomu jàmbur yii ak ci façon bu ñu leen reyee ak ray bi nu mu ñaawee ak nu mu diisee. loolu yëpp xooluñ ko ñu ñu maanaam ñu leen di utiliser pour am maanaam pour wut wut ci xaalis wala du ci ay vie wala du ci ay célébrité nañ xoolaat suñu bopp ñun sénégalais yi yoon bii ñu jël du yoon bu baax yoon bii du jël yoon bu ñaaw la ñaaw na trop li ngeen nekkee ñaaw na trop li ngeen nekk di def doomu jàmbur bii ñaaw na trop. ngeen xam ko xamu leen ko lu ñaaw ngeen nekk di def lu ñaaw a ñaaw ñaaw ngeen nekk di def te fii nga xamante ne ñoom la ay mbokk waajo ñooñ ñooñu nga xamante ne ñoom la ñu faat noonu fi seeni i mbokk nekk tey ñoom ñii taxaw di wax bu ñu fa féetee woon kenn du leen dégg kenn du leen dégg yenn saa yi dafay baax maanaam nga jël palaasu nit ki pour yaa ngi dégg tuuti nga xam lu muy sentir. pour tuuti nga xam li muy yëg nañ doon xalaat sunu bopp te li ma gën a métti mooy ay xale yu ndaw ñoo koy def ay xale yu tuuti yoo xamante ne ni dañoo war a jur ay njaboot dañoo war a yar ay njaboot ñii nga xamante ne tey ñëw tiim tiim néew néew néew néew néew jàmbur yi di leen maanaam di leen lekk parce que loolu lañuy def li def lekk tiim néew di ko lekk la. parce que maanaam nit ku dee ngay wut ci moom alal wala di wut ci moom maanaam ku abonné ci say compte yow yaa ngi tiim néew di ko lekk. te ñi koy def comme ni mën ko waxee ay xale yi tuuti lañ yoo xamante noo dañoo a jur ay doom dañoo war a yar bu fekkee yow da ngay tiim ay néew di leen lekk yow xale bi ngay yar ci noonu nga ko yara parce que nit ku nekk ni nga mel noonu nga yaree loolu mu nekk lu garaaw ci société bi ñoom déjà ay danger lañ ñu ngi représenté ay danger ñu maanaam ay nit yu toxique lañ ci société bi war a yar ay xale yu war a nekk ay nit yu toxique comme ñoom. bàyyi leen xel ci li ngeen di def dem leen ngeen jéem a jël palaasu ñi nga xamante ñoom ñoo bokk ñaar ñoo ñu faat Pikine dem leen jël seen i palaasu mbokk yi ba xam nu ngeen koy gisee ba xam ban gis-gis ngeen di am waaye li ngeen di def ñaaw na arrêté leen ko arrêté leen li ngeen di def du ma fi nekk sax di wax ne senegal ay dëkku naa fekk laak yooyu du ci dugg waaye. Yen ñi nga xamanteni ni def lolu yéen nga def lu ñaaw te gis nga aduna bi li olof ñay di wax naan lu way rend rek ci sa loxo lay nacc tay len li seen wa keur ñom di yek xoolu len métit bi nga xamanteni mom tay tay ji ak njàkkare bi nga xamanteni mom mo dal seen wa keur defu len ko ñen tok ci seen seen seen réseaux sociaux dégg nga diw li diw la di wax ku ci nekk di ci wax lu mu xamul te amul lenn lo xamanteni xam ngeen ci li ngeen wax dara parce que li ngeen fi doon jotoo wax yépp bala ñi nga xamanteni ñom ñoy enquêteur yi di génné li xew ci biir enquête bi ah amul lenn lu ci dëgg dara du ci dëgg tuumaal nit ñi ngeen fi nekké yaq daru nit ñi tas ñi nga xam li nga xamanteni moy famille Yon ngeen nekk nekk nekk ci réseaux sociaux yi yoon bu ngeen jël yoon bu bon la ngeen xam ko xamu ko yoon bu bon ngeen jël dalu nañ ci ginaaw nak pendant qu'il est encore temps dellu leen ginnaaw ci yoon bi ngeen jël yéen dellu leen ci ginnaaw lii ngeen nekkee société sénégalaise bi soxlawu ko soxlawu ko réer ngeen làmmiñ mën ngeen a fen ñeme ngeen yàlla réer ngeen làmmiñ mën ngeen a fen te ñeme ngeen yàlla waa gis nga àdduna bi lu waay rendi sa loxo lay naaj continuer leen ci li ngeen nekk voilà alors du ma ñëw sax si li nga xamante ne moom la doyen Alioune wax doyen Alioune Tine la waxoon démb laa lay wax encore lii nga xamante ne yow doyen Alioune Tine ci ngay dox ñun xam nañ ko ñi nekk sa ginnaaw soi-disant ay Nations Unies soi-disant des droits les droits de l'homme ñun xam nañ ko te yow doyen droits de l'homme sa sen projet ñun xam nañ ko sen objectif xam nañ ko sen but xam nañ ko te lolu Ousmane Sonko daf ko déranger doyen Alintine gouverner premier ministre mo koy def président de la république fay présider Alintine Ousmane Sonko mo lay déranger Alintine projet Pastef daf lay déranger yow ak ñi nekk sa ginnaaw. soi-disant ay droit de l'homme Alioune ñoo ngi lay xaar naka ah, da ngaa da ngaa yegg seegul fi nga maanaam fi nga jëm fa nga yegg seegul mais ñu ngi lay xaar man loolu laa lay wax li ma la waxoon démb yaa quatre mois de cela Alioune Tine man loolu laa lay tontu ñoo ngi lay xaar ci arrêt bi xam nañ fi nga jëm ah sénégalais ñoo xamul fi nga jëm mais yow doyen Alioune Tine yow ñun xam nañ fi nga jëm ñoo ngi lay xaar yow ak say mbo mbootaayu droit de l'homme ñu ngi leen di xaar Sénégal ñun ñoo ko moom. Sénégal nous sommes nous ñun sénégalais nous nous les bëgg Nations Unies Nations Unies on s'en bat les couilles Sénégal nous nous bëgg ci réew mi fi jarul wër-wëral nan Nous euh, ay ay ay ay Ousmane Sonko moy Ousmane premier ministre président day présider voilà président présider jalo nga fiy génn di jéem xam nga ut yoon boo jaar jaru ko allentine waxal li nga bëgg a wax wax ko assemblée nationale bii ñuy préparé ah te xam nga ne assemblée nationale bés bu ñu ci tegee loxo ñun askanu Sénégal lu loi yi ñu fee war a voté xam ngeen ko yow Alioune xam nga ko xam nga fi ñu jëm yow xam nga ko te ñun mënoo ñoo dogalee mënoo ñoo kar mënoo ñëw baare Alioune Tine yoo laay waxal. ñong lay xaar ah ñong lay xaar yow ak sa mbootaayu Nations Unies ay soi-disant droit de l'homme xawma la nak lan lan ñun ay droit de l'homme du yeen yeen ñu koy jangal du yeen yéen ñu jangal lan moy droit de l'homme droit de l'homme ñun ñun ñun africain yi ñun ñoko jangal aduna li nga xamantene moy moy mooy droit de l'homme deug ñun ñoko jangal aduna ñun africain ñun nit ñi ñuul ñun ñoko jangal aduna àdduna Alioune yow ak say mbokk mbootaayu droit de l'homme ñu ngi leen di xaar fukki dërëm nag laa la wax fukki dërëm mënu leen ko ci projet bi fukki dërëm lépp li nga xamante ne ay valeur la te mu te mu te ñun suñuy askan nuróog suñuy diine yooyu la ñuy voté si sunu assemblée nationale fukki dërëm mënu leen ko ci waaw Alioune Tine ñu ngi lay xaarante parce que ñun xam nañ fi nga jëm man du ci sori ah du ma ci sori ñu ngi leen di xaar ci arrêt bi di ngeen ñu fa fekk voilà loolu laa bëggoon wax ci sa wax bi nga génn wax ko fii te amul benn njariñ amul ben njariñ man gisuma alentine li nga wax ban njariñ la am premier ministre moy gouverner lol lol lol lol lol sa lol secret la premier ministre lol <laughs> en fait loolu du secret lol du information mais en fait wo ci lolou alentine li nga ci jublu man nga afam yoon bo bëgg xal xàll dafa am yoon bo nekk di xal ni yaa ngi dëgg di jëm te ñun nak xam nañ ban yoon la waaye ñu ngi lay xaar dañ lay jox encore li ñuy woy crédit ba nit ñuy wax Alioune ñu leen la jox crédit waaye ñu ngi lay xaar ci arrêt bi assemblée nationale bi dinañ ci teg loxo par force mu lay neex yow ak say mbootaayu Nations Unies wala mu leen di naqari assemblée nationale bi dinañ ci teg loxo loi yi nga xamante ne nii moom moo moom moom lañ fa war a voté te mu nuróog li jëm ci bëgg-bëggu Sénégalais yi ak seen gëm-gëm dégg nga ak seen maanaam seen seeni valeur yooyu la ñuy voté si assemblée nationale bi Alioune Tine mënoo ci fukki dërëm yow ak say mbootaay Nations ko ci yow ak say mbootaayu droit de l'homme fukki dërëm mënu leen ko ci loolu ngay préparé ñun pare nañ bu yàgg Alioune Tine sénégalais ñoo comprendre lul nag nekk fii di tararare di wax <laughs> mais ñun ñun xam nañ waaw ñun ñuy dugg si réseau yi ñun ñi nga xamante ne ñun ñun ni ngeen ñu xamee lañ leen xamee yéen yan seen mbootaayu du de yooyu ni ngeen ñu xamee ba xam fi ngeen ñuy jaar dégg pour ñàkk ñu gëmloo ñu wala forcé ñu seen yooyu ngeen nekkee Hmm? noonu lañ leen xamee yaa ngi dégg ba xam fan lañ war a taxaw pour jàmmarloo ak yéen te dañuy jàmmarloo ak yéen fukki dërëm nag doon ko ci mën Sénégal dinañ ko def comme sénégalais bi comme Sénégal bi sénégalais yi bëgg waaw. Alioune Tine man loolu rek la am pour wax la yow sama vidéo bi nag bëgg naa Alioune Tine dégg ko voilà parce que peut-être sénégalais comprendre ñu mais li may wax alentin xam na ko te comprendre na ko voilà alors dañoo jàpp ay sénégalais. fële nga xamante ne Libi, Libye ñu falsifié signature premier ministre yóbbu ko foofu lay seen objectif nag waaye ba tey leeragul xëy na enquêteurs yi ba ba ñuy boucler dossier bi dinañ si am lu leen leer ci li nga ne motif yi leen yëkkati leen fi nga xamante ne mooy mooy mais yëpp nga nañ ko comprendre mais. dafa am lu jara suruñe ci lolu dama bëgg nag ngeen déglu ma xel wala limay wax ni ngeen dem ngeen ngeen vérifier ko c'est très grave c'est extrêmement grave et c'est très très dangereux li nga xamantene mom la gars def parce que ñen ñoko def c'est loolu mo am solo gis nga mbir bu amé hmm c'est bien ñu xam lan moy mobile bi lan moy motif yi té enquêteur ci lolu lañ sukkandiku sax ba japp ñi nga xamantene ñom ñoo faat peut-être wala ñom ñoy complice ki faat ñaari ñaari boo yooyu ñu faat fële Pikine parce que mbir bu amee dafay am lu ñuy wooy mobile yaa ngi dégg dafay am lu ñuy wooyee cest à euh, comme ni ñu koy waxatee sax ci jargon ci jargon cest à euh, police bi mooy euh, c'est-à-dire c'est-à-dire raison yi li li waral en fait mbir mi am loolu c'est très important bu ñu ci taxawee question yu bëri mën nañ ci am voilà aperçu wala ñu xam si li nga xamante ne moom lañ ci bëgg a xam. parce que ñi nga qui ñom ñoo dem Benghazi yobbu lettre bobu ci ci signature Ousmane Sonko nous falsifier ñen ñoko def def daf ci am ko ne lañu xamulan Diallo c'était un membre de l'APR ñukoy woyé Baba Diallo lolu mu nek c'est-à-dire lo xamanteni ni voilà c'est-à-dire euh, nous ma ko mën sax mu nek lo xamante déjà c'est politique lolu ben la ñaar moy buñu sétlo ñi nga xamante ñom ñoo dem fofu Benghazi falsi ak falsification wu signature présidence Ousmane Sonko yaa deug c'est-à-dire ay pël lañ lan moo tax ma taxaw ci peul bobu c'est c'est en fait c'est pas pour stigmatiser mais dafa am lo xamante ni dafa dafa don ay faits yoo xamante ne nii peut-être sénégalais yi lijjantiwuñu ko mais ñun ñi nga xamante ne ñun suñu bët bii dañ koy sànni ci biti ñun loolu lijjant dañ koy lijjanti te am na lu ñu si seetlu mooy lan mooy gis ngeen Mali boo jëlee Mali jël Burkina jël ba Niger dem ba jamono bii may wax ak yéen fi nga xamante ne moom mooy Togo ñëpp ñu ngi fa ñu ngi fa wax ne ay jihadiste lañ bu ngeen leen seetloo ay pël lañ ay pël lañ. Mali ñoom la ñoom la tu si ñoom la gars yi jaar pour créer jihadisme boo demee Niger ci ñoom la gars yi jaar pour créer jihadisme boo demee fi nga xamante ne moom mooy Burkina c'est la même chose ba ci jamono bii may wax fi nga xamante ne moom mooy euh, Togo ci ñoom la gars yi jaar pour samp fa li nga xamante ne mooy jihadisme c'est-à-dire pour déstabiliser secteur yooyu léegi bu ñu toogee ñu dëgg ñu ne ñeent ñi nga xamante ne ñoom ñoo demoon Benghazi ñetti ñi ay pël lañu da fay normal ñu taxaw ci question bobu da fay normal ñu taxaw poser wu ay question lan lañu ñu wuti fofu ba mu jaral leen ñu falsifier li nga xamantene mom moy euh signature du premier ministre lan lañ fa demoon wutu ji loolu ben la parce que bu fekkee ñom pour c'est des raisons de de de yaa ngi dëgg de d'asile politique peut-être mais soxlawul falsifier ay signature premier ministre asile boo koy laaj soxlawul ay ay signature autorité bi nga dëkk yi nga xamante ne fa nga jógee parce que asile ku koy laaj da ngay da ngay daw dëkk bi nga xamante ne fa nga jógee fa nga dëkk da nga fay daw te du ay autorité ñoo lay jox c'est-à-dire <laughs> carte blanche pour nga daw non kon soxlawoo signature autorité yooyu da ngay dem nga yóbbu fa li nga xamante ne mooy mooy motif bu valable pour ñu jox la asile ñooñu jugé ni motif yi nga indi motif valable la ñu jox la asile soxlawul falsifier signature premier ministre mais kanu lan moo tax ñoom ñu falsifier signature premier ministre ak ñett ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci ñeent ñi def loolu ñoom ñëpp boo doon seetee ay pël lañ ay pël lañ donc mu nekk question boo xamante ne c'est extrêmement en fait c'est une c'est d'un sérieux maanaam extrême extrême laa wax loolu nak dama ci wo ñi nga xamante ne ñoom ñooy autorités yi à ce ñu def attention ñu ñu question bi ñu taxaw ci bu baaxa baax parce que pourquoi parce que libi bobu nga xamantene mom moom lañ demoon ñoom libi boobu li xew mal yépp libi la jógee li xew Burkina libi la jógee c'est-à-dire déstabilisation bi nga xamantene ni déstabiliser nañ ko sous région bi lepp mu ngi mu ngi libi en fait libi la juddoo ñom ñu dem libi nek bokku ci askan bo xamantene ñom la gaay di utiliser pour déstabiliser li nga xamantene ne moom mooy sous région bi moy askanu pël pourquoi askanu pël waxuma ni pël yi dañoo bon waxuma ni pël ñom ñoom ñoo ñom ñoom ñoo bëgg déstabiliser sous région bi non non mais bu fekkee dafa am ay dafa am askan yo xamantene ni. nii dañoo éparpillé wu ci li nga xamantene moy dans la sous région parce que fo dem fekk leen fa pël bo démé sous région bi presque dëkk yi nek ci sous maanaam ci ci ci Afrique de l'Ouest bi yépp ñu ngi fa vous voyez ba ils ont tendance à s'isoler Ils ont tendance à faire des choses qui fa fait Mali c'est la même chose boo demee Niger c'est la même chose à chaque fois ils dem di dëkk fi nga ni nit ñi fa quoi en fait vous voyez dañuy isolé wu isolation bo ñu isolé mën na raison bi tax ñom ñi nga xamante ñom ñoy déstabiliser sous raison bi ñu utiliser leen parce que bu fekkee état bi limuy financer mu ngi financer fi nga xamante fa la nit ñi uppé mais ñi nga xamante ne dañoo isolé wu souvent financement bobu du gaaw yegg si ñoom loolu nag di créer ay conditions de précarité ci seen dund ñom té ñi nga xamante ñoo leen bëgg utiliser mais mais ci loolu ñu ñuy sukkandikoo dañ naan xol leen yéen dañ leen dañ leen abandonné dañ leen isolé toppatoo ñu len boolewuñu ñu len ci ci dundu bi et cetera et cetera si loolu la sukkandiku wala boog mën nañ sukkandiku ci lolu pour convaincre len à ce que ñu révélé ñu révélé wu convaincre len à ce que ñu ñu ma masala ñu révolté wu ba nek tay ay ak yu kenn xamul té lolu li koy prouver mooy Emmanuel Macron bi mu démé fi nga xamante moy mooy Guinée Bissau dem seeti Ambalo dam la ngeen déglu discours bi Emmanuel Macron defoon bi mu démé seeti Ambalo lan la waxon Ambalo wala la la waxon bi muy bi muy def mom discours fofu non mom Emmanuel Macron la la wax dafa ne les Peuls sont ciblés en Afrique de l'Ouest lapsus la def fofu te loolu la ñuy woowee un lapsus révélateur Emmanuel Macron lan moy yonam ci problème mu ethnie yi nga xamante ni amna Sénégal bu féké amna amna ci Afrique de l'Ouest bu féké amna ay problème mu ethnie kenn mësu dégg Afrique de l'Ouest à part Rwanda Ken musu ko dégg Afrique de l'Ouest en tout cas doon Mali wala mu nek ñun lu ñu yegul. mais en tout cas niveau bu mu tollu ni ñun musu ñuko yegg. ay ay ethnie am ay problème Afrique de l'Ouest ba gouvernement bi juk di faral ben ethnie baye ben bi lool musul am Afrique de l'Ouest lan motax Emmanuel Macron mu taxaw ci citer les noms noms nommément parce que moi cité dam vidéo YouTube YouTube vidéo mais là, qui y un lapsus en fait révélateur parce que Emmanuel Macron loolu non mu wax important, ngay Mali mom ngay gis Burkina mom ngay gis fi nga xamantene ne ni Niger nous déduire comme quoi que avons utilisé ngi utiliser nga sur pour déstabiliser sur bi utiliser pour déstabiliser les nga xamante ne mooy bi loolu du du du du cest information nous xam nañ Sénégal am un moment ay nit ñu mat nit dem falsifier li nga ne signature premier ministre dem ba bi nga ne jihadisme bi mi ngi sosoo libi Libye boobu la la la ñeenti sénégalais yi falsifié signature premier ministre demoon te ñeenti sénégalais yooyu ñetti ñi ay pël lañ ñun dara duñu bett parce que dañoo yor suñu bët di xool yor suñu nopp di déglu yor suñuy xel di analyser di xool di seetlu di analyser di déduire nag di def ay conclusion parce que ba tey jii nii.

parce que ce nga a ne c'était un membre de l'APR c'était un cadre au sein de l'APR C'est la Baba Diallo c'était un cadre de l'APR te gis au Sénégal jamono un problème bi fa am xëy problème la boo L'État ou le gouvernement pour des raisons c'est-à-dire euh, politique ou wala stratégique pas ci mais y un réel problème au Sénégal ci li nga xamante mom moy mooy suñu frère guinéen ni nek bir Sénégal sénégalais yi voilà am yu ñu leen di yu ñu leen di ñu leen di accuser vous voyez li yeb ay mbir la yo xamante dañ ko wara considérer dañ ko wara considérer parce que li xew nii lu garaaw la c'est une première ci histoire du Sénégal te mi ngi arrivé au moment où Macky Sall bi nga xamante mom affaire de pël la doon woote ci réew mi parce que loolu moy deug

Falsifier li nga euh, du mom signature premier ministre te ñet ñent ñoo ñet ñi ci avez fait. lañu boko ay pël lañu ñun en fait non non duñ ko dañ ci def dañ ci def def taxaw setlu parce que gis nañ ni xew ci dëkk yi nga mo Sénégal ñun xam nañ réalité yi xam nañ li nga en plus du fait que Macky Sall mi nga xamante mom mo fi woté won mbirum xeet ba ba ñi manam lolu gëm ko lu limay wax ne nak c'est c'est facile à vérifier parce que réseaux sociaux yi yaay ngi dëgg c'est un outil de sondage réseaux sociaux yi c'est un outil de sondage bu ngeen démé ci réseaux sociaux yi rawati na TikTok dam leen TikTok ngeen xol réalité yi ngeen déglu ñenn sénégalais yi ci manam ton bi ñuy waxee wala ci lan lañ sukkandiku tey jii pour wane seen ñàkk ànd ak bi ñàkk ànd ak nguur gi du ma ci sori mu ngeen ko vérifier seen bopp dem leen TikTok ngeen xool ñi ñi àndul ak Ousmane Sonko yëpp yëpp yëpp wala ñu àndul ak bu bees bi fi nekk yëpp yëpp yëpp ban xeet lañ ban ethnie lañ la plupart ban ethnie lañ te boo boo déglu seen discours déglu discours cest ci lan la ñuy sukkandiku pour wane seen ñàkk ànd ak bi ñàkk ànd ak nguur gu bees gii ci mbirum xeet lañ ko teg ñun nag duñu ay ay ay nitu wala ay ay ay nitu saa di xamoon naa ko non ñun du ñu gis loo xamante ne nii yaa ngi dégg danger la buy gete suñu askan ñu koy noppee duñ ko def dañ koy wax ñi nga xamante ne ñoom ñooy responsabilité ñu responsable yi ñu engagé ci seen responsabilité ñii demoon libi nañ ñu fexe ba xamal ñu na gouvernement bi fexe ba xam lan lañ fa wuti woon lan moo nekkoon raison yu taxaw ñu dem libi falsifié li nga xamante ne moom mooy signature premier ministre en plus du fait que Macky Sall xam ngeen ni depuis bi mu wàccee wala bien avant muy wàcce nguur amna ci ay tank yo xamanteni ne mu ngi ko doon dox ci nomination yu mu def ci son fin de contrat ak ñi nga xamanteni ni par exemple ki nga xamanteni ne directeur RTS nomination yu mu def avant ñu fi jóge pour la même chose loolu c'est des en fait c'est en fait c'est des ay mbir la yoo ni ne nii dafay prouver lu da fay wane lu bari yal yalla defal jamm Sénégal yal yalla ñak ñekk képp koo xamante bëgg nga indi fitna ci réew mi yal yalla ñak la képp fitna bobu ci sa bop ba doo ko tal ñun dañuy prévenir accusé wuñu encore une fois kenn accusé wuñu kenn ay accusation lolu autorité ñokay def ñi nga xamanté ñom ñoom ñoo ñom la seen responsabilité nek ci loolu c'est-à-dire police wala gendarmerie ñom ñoy accuser indi ay preuve japp yóbbu djebal juge juge def ci li nga xamantene moy mooy ñun duñ ko def ñun dañuy joxe li nga xamantene moy suñu point de vue dañuy alerter bu fekkee gis nañ lo xamantene ne jar nañu alerter parce que li xew nii c'est la première fois mu xew ci histoire du Sénégal ay nit jóg parce que nekkon nañ ci nguur ñu daanal leen ci nguur gi ñu jóg jël li nga xamantene mom moy ay ay ay signature nguur gi ay identifier identité nguur gi yobbu ko ci benen réew pour am ñu fay lijjanti mu ngi soog xam mu ngi soog xew mungi ngi soog teke xew te kiko def ci parti APR la bokon autorité lone woon c'est-à-dire cadre la woon APR ñukoy koy Baba Diallo da nga ni dem kewlo TV kewlo TV Babacar Touré génne na ay vidéo yu wane mom c'est-à-dire cër bi mu amone bir APR en plus du fait que Macky Sall jamono bi gis ngeen ni Macky Sall togul depuis bi Macky Sall wàccee ci nguur gi ba tay togul ma ngay lambar lambaré ci aduna bi fune mu dugg fa tout récemment yagul Côte d'Ivoire la demone jet privé la Macky Sall doxonto jet privé Macky Sall jet privé lay doxonto te ñoo ngi dégg ni état bi c'est-à-dire mon privilège yi nga xamante ni moy privilège du président de la république yi mo waroon am Macky Sall état bi joxuñu ko ko en tout cas am na yoo xamante ne ngi dégg dañ dañ ko téye joxuñu ko ko mais c'est la première fois day aussi L'histoire histoire du Sénégal nous avons un président qui a dafa nguur di jet privé jet privé la Macky Sall di Côte d'Ivoire il na trois jours la ngeen la publication bi Thierry Alassane Sall def ci page li nga def na Facebook donc nous avons alerté les autorités sénégalaises en plus du fait ñi nga xamante ne ñoom ñoo organiser déstabilisation sous région bi ñu organiser ñi nekk ci ginnaaw déstabilisation Mali nekk ci ginnaaw bu bu Burkina ak yeneen yi yeneen Niger ak yooyu ñooñu ak nguur gu nguuru Sénégal bu bees bi déggoowuñu déggoowuñu de ngeen yëg yëgu leen ko déggoowuñu dégg naa ay tappalekat ay nit yoo xamante ne nii dégg nga yaa ngi dégg ay faussaires lañ. deug na la ñu wax naan waaw manam di jëm di jëm gëmlo sénégalais comme quoi que way nguur gu bees gii dañoo ak France dañu signé contrat ak Macky Sall et cetera et cetera yépp ay manipulation la dara du ci deug dara du ci deug waaye dara du ci deug lool nak pour mu leer leen yeen pour mu leer leen ñi di wax ni Ousmane Sonko ak Macky Sall dañu signé ay contrat dañu signé pacte dañu def protocole pour mu leer len ay fenkat lañ pour mu ñom wax du deug ay fen la. c'est-à-dire en tout cas bañu récupérer nationale bi ba parti passeif am majorité. vous comprendre ne ñom li ñuy wax parce que ñëpp ñi nga ne ak Macky Sall té def fi ay détournement ay crime dañ jël c'est une question de temps temps temps wu ñu récupérer assemblée nationale bi intention dissoudre l'Assemblée nationale bi am d'ailleurs sax bind wa conseil constitutionnel pour y a une condition may dissoudre nationale bi na conseil constitutionnel len je sais pas si vous avez wala mais en tout cas bind ko fay mu taxi na nationale bi hein fay na len manam yone ça ça projet de loi pour dissoudre e ak ñom ñëpp fa lañ concentré wu ñi ci nekkaloon ministre nekk ci ay ambassadeur wala nekk wa APR laay wax dé wa APR yi nga xamanteni nekk ñu won ministre ñu won ay directeur général ñu won ay ambassadeur ñu won yenn genre fonction de manam poste de responsabilité yu mag mag yi fa lañ fa la leen Macky Sall concentré woon HCCT ak fi nga xamanteni mom moy euh CSE te Bassirou Diomaye Fay laaj na assemblée nationale bi pour ñu dissoudre ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari kii yooyu je sais pas si dinañ ko def wala duñ ko daf buñ ko defulee basir basir Diomaye fay dina dissoudre assemblée nationale bi buñ ko defulee man je pense que sax basir Diomaye fay lolu mo tax mu tagal len c'est-à-dire apa bobu pour man apa la dafa len ko jox xol ndax ñom dañ fay nekkal askan bi wala nekkaluñu ko fi parce que basir Diomaye fay bu len di proposer dissolution yooyu dafa len di wax dafa len di jox ay motif dina leen wax lan mo tax mu bëgg dissoudre acct wala mu bëgg dissoudre CSE

da fay am manam largement l'opportunité pour dissoudre l'Assemblée nationale te il faut que mu dissoudre ko. hay deug buñ ko défé nak mu bàyyi leen ñu jéxal sen mandat buñ ko déful mu tas assemblée nationale bi ñu défat benen élection voté wat xol nu ñu amee majorité xol ni askan bi amé majorité assemblée nationale pour mën fa teg loi yi nga xamanténi ni moy loi yi ñu soxla pour yégalé li nga xamanténi moy liggéey bi vous voyez parce que ñi di wër di wax naan waa Bassirou jamaa ak ak ak Ousmane Sonko dañoo complot ak Macky Sall dañoo tek dil mun leen xam jamono bi mun leen xam ndax dañuy doul dañuy fa tant que demuñu assemblée nationale am fa majorité vote ay loi yo xamante ne moy ñu permettre ñu installer haute cour de justice pour atalen ñom ñi nga xamante ne ñoo àndoon ak Macky Sall don ray sénégalais wala ñuy détourner alalu réew mi. vous voyez man en tout cas lii nga xamante ni moom moo moom la gars yi def man génne mu ci loxo Macky Sall ko ci loxo Macky Sall génnewu ko ci parce que Macky Sall ñamuy liggéeyal ah ay adversaire u askanu Sénégal lañu Macky Sall ñu muy liggéeyal jamono bii ñoom ñoo teg askanu senegal coono bi nga xamante ne moom la nekkee depuis 1960 ñoom la kon Macky mënta dox ci ay intérêt Sénégal Macky Sall yaa ngi dëgg mënuñu ko génnee ci liy gàllankoor nguur gu bees gii duñ ci génne Macky Sall man duma ma ko ci génnee ci la bokk. parce que ñi nga xamante ne ñoo def li ñu def nii libi ay nit nitu Macky Sall lañu loolu dafa dafa war a leer ci boppu sénégalais yi ay nit nitu Macky Sall lañu non seulement ci parti politique am lañ bokk ah non seulement ci parti politique parti bo xamantene ne moom Macky Sall moko mom ba légui APR Macky donc non seulement ci parti politique Macky Sall mais ñi nga xamantene ne ñoo affaireu bi Macky donc avertir autour alerter autorités à ce que question très très très très mais très au sérieux très au sérieux. Parce que c'est très sérieux. C'est très sérieux. ñi def non seulement niente ñi ñu doon ñi def maa ngi def non seulement niente ñi ñu doon Nous ñi ci xeetu Macky Sall lañ bokk xeet mbirum xeet bu noonu xam nga Macky Sall bu man Macky Sall bu toogoon Sénégal yaa ngi dëgg doxal comme li nga xamante ne moom moo yaa moom moom maanaam moom noonu la Sénégal en fait man munoon naa du ma doon am sikki sàkka mais Macky Sall dafa dafay saa dafa créé loo xamante ne nii yaa ngi dëgg poson la ci askan mooy mbirum waaso dafa fay créé te gaa yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk di déstabiliser sous-région bi. ci mbirum waaso lañ koy jaar Mali fa lañ jaar Burkina fa lañ jaar Niger fa lañ jaar jamono bii ñu ngi Togo Togo xaw ma bene ñu ngi fa ba tey ci mbirum waaso la ñuy jaar parce que gis nañ ni diine yi doxatul en tout cas du ngay réussir loolu même bu fekkee temps yii ci ginnaaw am na benn seen benn genre élément bu fi génnoon da nga dégg nga di jéem a di jéem a maanaam di jéem a teg loolu di jéem a créer loolu mais jamono bii may wax ak yéen. ñoom ñi nga xam ñoom mënatuñ jaar ci mbirum diine parce que ça dit ils ont été démasqués parce que y' a quelques années en arrière ci mbirum diine lañ doon jaar pour déstabiliser ay ay euh, voilà di déstabiliser ay deuk yo xamanteni ne ni ànduñu ak ñoom wala d'accorduñu ak ñom ci liñ seen bëgg-bëgg mais comme que comme que loolu gars yi démystifié nañ ko comme que gars yi léegi ñoom comprendre nañ len légui ñu bëgg a mbirum diine dem jaar ci mbirum waso c'est très très très très très important le ma leen di wax ni en plus bu leen fàtte ni amoon na ñi nga xamante ne nii ci mbirum waaso bi Macky Sall doon woote woo Sénégal dañ ko dañ tey àndoon ak moom mooy ki fi nekkoon ministre de l'environnement ak ki nga xamante ne moom moo fi nekkoon ministre ministre euh, du euh, ministre des finances ñoom ñu demoon jënd ji li nga xamante ne mooy armes yi. loolu bu leen ko fàtte Sénégal jënd nañ fi ay armes yoo xamante ne nii kenn xamul fan la armes yi nekk kenn xamul fan la armes yi nekk. ana armi c'est les mêmes c'est les mêmes ñoo bokk esprit ñoo bokk ben gëm-gëm nga ne est libi xamul lu mu fa doon def ci parti APR la ci ñi demul jënd armes 45 milliards yo ñu demoon jënd ci ay armes ñoo avez ñom ñoo Vous ñoo far ñoo bokk avez gëm. c'est les mêmes qui fi fait Ousmane Sonko rebelle la am nañ preuves c'est les mêmes. Nous nous tudd que waa ministre de l'environnement au Sénégal Le ça va paraître fou ça va paraître insensé mais nous savons, nous savons. Nous savons, nous savons. Abdou Karim Sall Abdou Karim en tant que ministre dafa taxaw fi Sénégal yëpp di ko Ousmane Sonko rebelle la ci preuves quelques mois après nous avons le même Abdou Karim Sall

Falsifier signature premier ministre pour lan libi bi nga xamantene ne fa la jihadis yeb du jógee fa la déstabilisation Mali libi la déstabilisation déstabilisation Burkina libi la déstabilisation sous raison, yeb libi la jógee ñom ñu dem libi eh dama ni man en tout j'interpelle les autorités sénégalaises question bi c'est une question yaa deug c'est-à-dire très très très très mais très très très sensible et très grave nañ ko lijjanti ñii nga xamante ne ñoo demoon libi nañu lijjanti lan lañ fa dafi ji woon kan moo nekk seen ginnaaw lan mooy objectif yi lan la parce que nag yéen xam ngeen que ni gars yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon fii ak Macky Sall en tout cas bu dul ñëpp majorité bi kaso lañ jëm vous le savez.

donc autorités sénégalaises en tout cas yu ñoo leen di ñii demoon Libye nañu wax lan lañ fa wuti woon kan moo leen yónni ñen ñoo nekk seen ginnaaw nañ ko xam ñun loolu lañ bëgg xam ñun. question bi dañ ko lijjanti ah lii duñ ko bàyyi mu jàll. ah te te ñu xam nañ ni nguur gi fi nekk nii d'accorduñu ci façon bi France di doxalee Sénégal. d'accord ñu ko li nga xamante ne moom mooy projet bu ñu am projet boobu arrangé wul Alioune arrangé wul ñoom waa APR yi fi nekkoon arrangé wul ñi nga xamante ne ñoom ñooy nasaraan si arrangé wu leen ñun xam nañ ko arrangé wu leen loolu dama ci profité pour c'est-à-dire wax ak yenn dof yi may gis ñu nekk ci internet bi naan waaw Ousmane Sonko parce que li tax mooy dafa am ay sénégalais yu leen di yu leen leen di saa yu leen ñii di wër naan Ousmane naan naan Ousmane Sonko dafa trahir waa AES dafa trahir maliens yi dafa trahir xaw ma lan ak lan parce que moo waxoon bu ñu ko falee dafa yónnee ay soldats dafa yónnee ay militaires et cetera et cetera Ousmane Sonko faluñu ko pour mu dem gérer ji pour mu dem lijjanti problème maliens yi Ousmane Sonko faluñu ko pour mu dem régler ji problème mu burkinabé yi Ousmane Sonko fal pour mu régler ay problème mu yi. dañ ko fal pour mu régler problème sénégalais yi dafa fekk na ñom ils sont pas conscients ci yaq bi nga xamanteni Sénégal yaq nako ko sous Macky Sall ils sont pas conscients ci yaq gi Macky Sall Sénégal ñom ils sont pas conscients de ça lolu c'est-à-dire xamuñu ko wala bayuñu ko xel parce que maa ngi gis ay sénégalais yu bris ci ci réseaux sociaux yi ñuy dem di soutenir yaa deug espèce panafricain yi nga xamante ne ñoo nekk di wax naan woy Ousmane Sonko dafa trahi euh, malien dafa trahi bu fekk ay intérêt Sénégal dafa taxaw ay intérêt Mali lay xaar c'est ça la vérité loolu ngeen xamul les états ils ont pas d'amis ils ont des intérêts bande de clochards yéen di ay nitu dara les états ils n'ont pas d'amis ils ont des intérêts Ousmane Sonko bu waré dimbali malien tamit dafa war dimbali sénégalais ba paré Sénégal bi nga xamante ñom buñ koy jot dañu fekk Sénégal mu tas yalla ñu sutural mais Sénégal Macky Sall daf ko tas ndax mbirum waso waxuma la sax détournement yi ah mais mbirum waso waxuma la sax jël bi mu jël suñu alal jox ko tuba bi moy pétrole bek gaz bek or bi ah mais Macky Sall dafa tas Sénégal Sénégal moy dëkk bu am ñaan mais kon no jamono bi may wax ak yeen danaka ñu won ci guerre civile danaka ñu won ci guerre civile. te li li lañ koy prouver ku ci nekk mën na mën na see cité ñaar wala ñett yéen ñu may déglu ku ci nekk mën naa jël ñaar ba ñetti exemple ci ni Macky la dafa indi affaire waaso ci réew mii moom la fi andi. APR rek exemple la APR bi muy demaare ak ak bi muy fu muy daanelee ñan ñoo nekkoon ci bopp APR ak bi muy APR ak ak deux mille ba deux mille vingt quatre bii ñan ñoo nekkoon ci bopp APR. dama la ngeen xool loolu bu ngeen xoolee dangeen xam ni Macky Sall mbirum waaso la doxee. te lolu man lolu man lolu sama xalaat personnel la mom mo waral dem bi ñen ñi moy bi dem bi ñu dem Mali dem fele nga xamanteni moy Libi lolu ko waral mbirum waaso la lu leer la leen di wax lu leer la leen di wax Ousmane Sonko bala mo dem lijjanti malien yi fay lijjanti sénégalais yi ba paré parce que lolo tax ñu fal ko sénégalais faluñu ko bu mu dem di malien yi sénégalais yi déwuñu pour Ousmane Sonko dem di ay problème malien même bu fekkee maliens yi suñuy frères la priorité Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye du Mali Sénégal la yéne gis la la preuve mu ngi sénégalais Sénégal dem ba Libye falsifier signature du premier ministre dem pour lan di lan li xew Sénégal ndax nañ ay dem xamul fa lañ télé même waaso yooyu non même waaso boobu non mom la mom la gars utiliser pour déstabiliser Mali déstabiliser sous région bi même waaso bi la j'accuse personne nak mais c'est des faits dem la ngeen vérifier li may wax ku mu neex dama nga vérifier ko ñu na dañuy sant yalla bi amé Sénégal mu mel ni mu mel mbirum waaso daa ngi dëgg sunu mag ñi fexé nañ ba ñett réew mi ba waaso yépp tay ji ni deug nga amul presque daanaka mun naa wax amul amul xaaj ak sen dañuy séentu suñu biir dañuy demalante dañuy kalante heureusement libu bu amuloon Sénégal Macky Sall tas na Sénégal man ma la ko wax te te ba tay xolol Macky Sall ba tay bayiwul lolou dama bëgg sénégalais xam ko Macky Sall ba tay bayiwul ba tay mi ngi am ay intention ci dëkk bi parce que d'ailleurs parce que limay wax ak yeen ni dama la nga laaj ko euh, nu sax euh, caporal euh, caporal je caporal Diop da def ay souvent ci ci ci euh, ci ci c'est-à-dire ci ci média en ligne Macky Sall dañoo créer groupe WhatsApp groupe Telegram xam nga Telegram mo mo ëpp sécurité yi nga xamante moy WhatsApp dañoo créer seen groupe Telegram bo xamante Macky Sall mo ngi ci Idrissa Seck mo ngi ci Amadou Ba sax boole nañ ko ci finalement la jot ak ñom génn parce que Amadou Ba dafa jàpp ne Macky Sall daf ko trahir parce que Amadou Ba dafa bëggoon forcer ni mo gagné élection yi. Macky Sall mo bañ parce que Macky Sall mom xamna sénégalais ñoo xamul mais Macky Sall xamna ni bëss bu Amadou Ba nekkoon président de la république mom lay mettre à l'hôtel, mom lay crucifier parce que Amadou Ba xamna ni sénégalais yi bëgguñu ko ànduñu mom mom guinéen la même bu fekké Ousmane Sonko mu ngi rafetal nan Amadou Ba sénégalais la etc etc. oui mais Amadou Ba guinéen la esprit guinéen lay doxé vous voyez Ba bu jàppee bu jàppee woon boppam Sénégal sénégalais bu jàppee woon boppam sénégalais ñaaw téef yi mu def ci dëkk bi Amadou Ba du ko def parce que ay milliards la détourné bi mu nekkee impôt domaine. voyez Amadou Ba pour mu jubóog sénégalais yi Macky Sall lay sacrifié Macky Sall nag loolu la xam loolu la comprendre Macky Sall xamoon na ni Ousmane Sonko moo gën Amadou Ba xamoon na ni Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko mii ñoo gën Amadou Ba. Bassirou Faye Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko ay sénégalais lañ Sénégal jaral na len Sénégal jaral na len def ay sacrifice pour deuk bi nek ci jamm te lolu mo am Macky Sall il a très bien calculé côté bobu noonu il a très très très bien calculé Macky Sall mo leen gënoon xamni bu Amadou Ba falu won Amadou Ba da koy crucifier Amadou Ba mom lay jël sacrifier ko dégg nga pour mëna djubo ak sénégalais yi parce que demande sociale la mais même Amadou Ba sax bu ko nanguloon def wala bu amone ragal pour def ko tubaab bi ñoo ko koy forcer mu def ko pour mu mën a am tranquillité yaa ngi dégg toog ci bopp réew mi jël sunu alal jox leen ko parce que amaru Ba moom joxe woon na Sangomar ba pare. Amadou Ba tayle woon na Sénégal ba pare loolu yéen ñëpp yéen a ko déggal seen bopp yéen ko gisal seen bopp kenn nettali ko kenn bi mu demee fii moom Amadou Ba nga xamante ne moom mooy France dégg ngeen la mu fa wax mook Elisabeth Borne ngeen ko kenn du nettali kenn Amadou Ba moom jaayoon na Sénégal ba pare moom. moom jëloon na Sénégal jox ko tubaab bi ne leen voilà jël leen mais mën naa falu rek mais Amadou Ba falom boobu noonu doon yem ci loolu parce que bu faloo ba pare il faut que mu juboo ak sénégalais yi mu mun a am esprit tranquille pour liggéey te loolu pour mu def ko moom Amadou Ba il fallait mu sacrifier Macky bi nga xamante ne nii moom la sénégalais yi jotaloon il faut que mu jël Macky Sall tay la ko ne am am na jël leen ree leen ko ngeen may ma jàmm kese té Macky Sall xamu no lolu mo taxone Macky Sall bayyi <laughs> Bassir Diomaye fay dem contrairement ak yi ma dégg seytaane ak kat yi nek ci dëkk bi naan waw dañoo signé pacte ak Ousmane Sonko oh Macky Sall dafa signé dafa dem xamal lan lan Ousmane Sonko Macky Sall intérêt personnelam Macky Sall bopam mo tax mu bayyi Ousmane Sonko mu jall bopam ay intérêt personnel mo tax mu bàyyi Ousmane Sonko mu jall la preuve ana waa APR e ana waa APR e talewu leen Macky Sall tayle wul waa APR leen tayle daf leen tayle tayle na leen ñoo ngi nii di juuxu frais ñoom waa APR lii moo xew Macky Sall nag jamono bii ci intérêt tubaab bi lay dox te intérêt tubaab bi mooy li xew Mali intérêt tubaab bi mooy li xew Burkina intérêt tubaab bi mooy li xew fa li nga xamante ne moom mooy sous-région bi yéen ñëpp dégg ngeen ko en tout cas seen militaire seen benn général bu toog wax ko dégg ngeen ko du ma ko nettali kenn seen général ñoom tubaab yi am na seen général bu toog yàggul dara wax ko ba mu leer que ni bu ñu naree pet dëkk yi nga xamante ne nii ci lañ am maanaam ci la ñuy dunde voilà nañ fexe daal bu mu leen perte. bu ñu mënul jëlee ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci bopp nguur googu noonu teg fa ñi nga xamante ñoom ñoo leen fay nekkal nañ ko déstabiliser loolu dafa leer nañ ñoom ñoo ko wax mu leer nañ waaye donc autorité sénégalaise yi maa ngi leen di interpeller ci question bi question bu sensible la question bu dangereuse la nañu fexe ba xam lan moo leen yëkkati ñoom ñu demoon libi lan lañ fi wuti ji woon ak ñan ñoo nekk seen ginnaaw te man li ma wóor ba wóor bu ñu leen toppee Macky Sall du ci génn tubaab bi nek ci ginnaaw Macky Sall duñ ci génn loolu c'est clair parce que renégociation contrat pétrole yi gaay ngeen yaaka dañuy toog croiser le bras jumaay fay ñëw xam nga waaw renégocier affaire yi wàññi ci intérêt yi nga xamante ñom mën man mañ si amoon yan ne day yombé noonu vous avez absolument rien compris comprendre len

jamono yi nga xamante ne daanaka perte nañ ñetti wala ñeenti dëkk perte nañ Mali perte nañ Burkina perte nañ Niger perte nañ ñu ngi nii di perte euh, euh, c'est-à-dire euh, Sénégal Côte ak Sénégal ñooy seen ñaari tànk ñu taxawee Afrique buñ ci perte perte la ca des yëpp ñoom xam nañ ko ñoom xam nañ ko très bien te gis ngeen Côte d'Ivoire ba tey ñu ngi ñu ngi ñu maanaam ngi ñu ngi wéy ndigal.

ànd ak waa AES duñ ko def duñ ko def ñu ngi ni kii man ma tubaab bi naan qui veut voyager qui veut voyager loin doit ménager sa monture Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye dañoo nekk di ménager leur monture même bu fekkee Macky Sall mi ngi saboté Macky Sall mi ngi saboté mu ngi ci saboté bu metti loolu xam nañ ko bu ngeen déggee seen teleem yi nga xamante ne moom la fi amoon ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekkoon ay complice mooy waa TFM ak Bougane Gueye Dany ak ay Madiambal Diagne ñoom euh, patron de presse yooyu may dégg ñu takk seen rajo di yuuxu te ay délinquant lañu ay bandi lañu ñoom ay bandi lañu dañoo sàcc alalu Sénégal ba pare bëgg taxaw fii di fi victimiser wu. te ay délinquant lañu dañoo ay délinquant fiscal lañ dañoo détourné li nga xamante ne moom mooy les deniers publics bëgg fi taxaw wëlbatiku naan dañuy victimiser wu. bi leen Macky Sall ne ñu amel bor dañoo d'accord léegi ñu ne leen da ngeen ñu amel bor ñu la noonu bor bi tollul noonu te bi leen ko Macky waxee ñu d'accord te Macky Sall da nax ñom Macky Sall dalena nax li tax Macky Sall nax len Amadou Ba motax Macky Sall nax len gis na Macky Sall limu def journaliste yi ah c'était pour contrer Amadou Ba loolu sénégalais yi comprendre ñu ko parce que Amadou Ba dafa Amadou Ba c'est-à-dire vu que ñom Macky Sall lañ ligéel Amadou Ba bëggum sukkundi sukkandiku ci loolu pour utiliser len pour sàcc élection yi yeen xam nga ni Amadou Ba il était prêt pour guen wax ni mo gagné vous le savez Sénégal loolu Sénégal yëpp xam nañ ko. nee Macky Sall pour mu contrer il fallait mu nax journaliste yi madame maîtriser leen te noonu la def faut que dof yi ñu le nañ Macky Sall li suis wax non assemblée nationale mais ils étaient tellement dans le faux que mënuñu woon gis que nga je ne comprimer Macky 40 milliards ngeen ñu amel Macky Sall amuloon c'est-à-dire pouvoir au balen, l'assemblée assemblée nationale moo def mais ils étaient tellement aveuglés yaa ngi comme ils avaient tellement confiance en Macky Sall comme que mu donne doon jox ay subventions yu ñu mérité wul mu leen doon impôts yi ñu koy bañ a fay leen aveuglé moo tax bu mu leen nee impôt bi dama leen koy baal xoolal ñu won ginnaaw Amadou Ba ñu won ginnaaw Amadou Ba Amadou Ba pare pour que journalistes la presse bi annoncé ni moom vainqueur Macky Sall un vainqueur. Macky Sall ça ko donc pour conclure autorités sénégalaises yi nañu sëgg ci question nous nañu une ci question parce que qui veut voyager loin doit ménager sa monture ñun xam nañu yéen a ngi ménager Ousmane Sonko li tax damul ba tey jàppale Maliens yi hein Ousmane Sonko moom xam nako ko Maliens yi bien que bëgg nañ leen c'est pas le moment heure bi jotagul instant Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye seen toogaay yi c'est-à-dire amuñu assise bobu amuñu assise boobu saa ñagaguñu li nga xamantene mom moy mooy dëkk bi tous les pouvoirs téewuñu ko sen loxo tous les pouvoirs Nous sommes ne ennemis Voilà. ci dëkk bi wala euh, euh, c'est-à-dire seen un complice su seen ennemis c'est-à-dire complice Sénégal Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye c'est-à-dire maîtriser guñ leen une fois que maîtriser leen nak. ba le plein pouvoir là mën cest à actes. mën nañoo poser ay act yu mel ni dem di dimbali ay maliens dem dimbali maliens yi wala ñu dimbali ñi nga xamante ne ñoo Burkina Burkinabé mais c'est pas le moment Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye cest saa dire fi ñu wéeru moo dëgëragul am nañ nag l'essentiel l'essentiel mooy askan bi ànd na ak ñoom loolu mooy l'essentiel am nañ ko mais des na ay pouvoir yoo xamante ne nii yaa ngi dégg voilà des na ay pouvoir yu ñu war a maanaam récupérer téye ko seen loxo assemblée nationale bi ci la bokk téewaguñ ko amna ay loi yo xamanteni ni nii daa ni moom maanaam yaa ngi loi yo il faut que ñu voter vote ko pour mën a mu leen accompagner loi yo amagul loolu il faut que sénégalais yi comprendre ko té bañu a déglu maanaam fenkat yeeg tappalekat yi may dégg ci réseaux sociaux yi dégg nga ñu dem bay jappalé nonu Sénégal yi nga xamante ñoo ne si réseaux sociaux ñu leen lay woy ay panafricains té c'est des corrompus ñom ñep ay corrompus lañ ay manam ay opportunistes lañ dañuy profité ci vent bi di souffler en Afrique vent de changement bi soufflé en Afrique si la ñuy profité dégg nga pour am ci xaalis xew bu si di ci xam Franklin Nyamsi la moo xam Kémi Séba la moom moom nëbbatuwul Kémi Séba moom wax na Seba, ko te il a été très malin nag Kémi Séba Kémi Séba moo leen gën a yeewu koy prouver rek mooy la fekk mu nekk France il fa màggee fa yaroo ci quartier français yi ñëw di diriger ay africains Ils Afrique fi fi ngi wala intelligence mais lui confirmer intelligence su Kémi Seba moi dama ko Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye dama di may temps ko. dof ma les réseaux sociaux internet bi di taxawaalu dégguñu waxu Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ba ci kanam parce que Kémi doful Ousmane Sonko mooy yoonu xel mu sell mooy yoonu nit kuy xalaat mooy yoonu ku am xel mooy yoonu ku xam fi mu jëm mooy yoonu ku nar a réussir Kémi Séba doful doful marax su ma gisee yenn sénégalais yi wala yenn jeune africains di topp ay franklin ñam si yii nii dégg nga voilà di topp genre gars ay nataali yàmb yi nii man dama naan non franchement damay comprendre pourquoi Afrique. manam féete fi mu batay ba Je dama koy comprendre dama comprendre parce que c'est émotion la dox doxuñ ci vérité doxuñ ci réalité ci ay émotion lañ veux te loolu Ousmane Sonko wax dire. bi mu le fi nga dire. mom moy Mali nañu génn ci émotion yi ni ku ñuul c'est-à-dire ku ñuul émotion dafa bëri trop lu muy dox ci ay émotion lu muy

amul loolu lañ ci génn ay ndeysaan lañ ci génn ndeysaan yooyu depuis boobu ba ci lañ nekk moo te sunu situation changé wul ndeysaan boobu noonu ñu nekk billaahi moo tax ba tey sunu situation changé wul bés bu ñu génne ci ndeysaan yi tey jàkkaarloog dëgg bi di ko assumer billaahi wallaahi talaay génne ci sentiment yi barki Seydina Mohamed léegi suñu situation changé te Ousmane Sonko xool leen ni muy Sonko li mu réussir Sénégal leçon la pour ñun ñëpp lan lañ ko fi tuumaalul dox ci lañ lan lañ fi tuumaalul Ousmane Sonko ndax ndax ñàkk dox ci émotion ndax ñàkk dox ci ay sentiment lan lañ ko fi tuumaalul Ousmane Sonko tey jii ñàkk doon tuumaal ñëpp wala boog ñi nga xamante ne si ñoom maanaam moom lañ ñoom ñoom lañ ko doon jaxasal tey ñoom ñëpp tey d'accord d'accord nañ ko nangul nañ Ousmane Sonko Ousmane Sonko nag bu toppoon sénégalais ci seen émotion yooyu waaye ndey saat ay c'est-à-dire yooyu noonu barki seet naa ma xam Ousmane Sonko mu ngi ci kaso ba tey dee na bu yàgg nañ ko kaso def nañ ko lu ñu def imam ko posono nañ ko parce que Ousmane Sonko dafa nangona dafa nangu woon affronter li nga mom moy la réalité ça est à dame ça est à dame Ousmane Sonko top ci Sénégalais yi nekkone fi nan waw ndeysane c'est-à-dire non dafa jël deug bi taxaw ci en dépit de tout mu taxaw ci deug bi tay nak tay tay tey nangul nañ nangul nanguluñu ko nangul nañ ko nangul nañ ko. tey bëri nañu doon démb taxaw naa Ousmane Sonko nitu fitna la tey d' accord nañ ak moom tey d' accord nañ ak moom voilà affaire bi nag noonu la nañu jël réalité yi ñu accepter réalité yi ñu assumer ko parce que li ngay assumer il faut nga accepter ko d' parce que fi lay métti il faut nga ni nga d' ni foofu mooy métti ci yow nga soog a dem uti garab bi koy faj. xam nga sa sa bopp du métti ngay dem uti ay ay pansement da ngay nangu sa bopp ay métti nga xam ne sa bopp biy métti nii ci biir lay méttee du ay alcool moo koy faj da nga dem nga uti ji ay parastamol wala ay nit yooyu noonu yu mel noonu nga naan ko sa biir du métti nga dem di wuti ay alcool di ko diw si sa tànk yi déedéet da ngay wuti li nga xamante ne maanaam di ko mën a jàllale sa biir biir mu fekk mu fekk fa la fay la fay métti kalame ko affaire bi noonu la war a demee Ousmane Sonko nii la ko defee. te tay ji ni yeen ñi ko doon xex demb di baña and ak mom di ko def nitu fitna nan ay dafa yaq dekk bi ak et cetera et cetera ñoo ñepp tay ñoo nangul ni Ousmane Sonko tay sa taxaw ci deug sans am ci ay sentiment sans dox ci ay sentiment ak ay ak ay émotion mo waral tay mu réussir lu mu réussir ñom ñokoy sédal seddal ñom ñokoy sédal la ah tay wala affaire bi ni la démé donc lañ leen taxaw ci li nga xamantene mom moy fée yi genn ci ndaysan yaay deug nañ si nañ si génn buñ si génnul billaay walaay talaay situation bi ñu nekkee nii duñ si génn abadan duñ si génn mukk depuis quatre cent soixante et quelques années bi tubaab bi dëggee suñu tànkam suñu réew yi ba tey nii la ñuy nii la ñuy dundal dund bu metti bi lañ nekk te dara waral ko loolu ndeysaan gi kese ndeysaan gi am na fu mu baaxee mais fépp voilà du fépp donc ñii nga xamante ne ñoom lañ jàpp ñu dem Égypte. xaw ma libi na autorité sénégalais yi def seen liggéey yi ci ñoom nañu wax sénégalais lan moo leen foo yóbbu kan moo leen fa yóbbante lan moo nekk ci ginnaaw seen dem bi foofu ñan ñoo nekk ci ginnaaw ñan ñoo nekk ci ginnaaw man damay def lien yi ah. lien yi dama koy def c'est les mêmes personnes ñoo la mun jënd ji 45 milliards ci ay armes indi ko fi nga xamante ne mooy Sénégal nëbb ko kenn gisul armes yi ba tey c'est les waa APR la ñoo la mun jënd ji ay arme andi ko dem libi bi nga xamante ne nii fa la fa la jihadisme bi jóge di wàcc jihadisme bi nekk Mali libi la jugee bi nekk Burkina libi la jugee bi nekk sous région bi yëpp libi la jugee ñoom ñoo dem libi lan lañ fa doon def kan moo leen yónni lan moo nekk seen ginnaaw lan mooy motif bi leen fa yóbbu lii moom mooy question man yi may posé yi may wax autorités yi wala boog yi may transmettre autorités sénégalaises yi ñu lijjanti ko. dëkk bi kenn du ko tàll dëkk bi doon fi nekk ci nguur gi nekkee fi lu la neex di ci sénégalais yi nu mu leen neexee jël sénégalais yi daf leen ay kaña ñu wàcce leen nguur gi ngeen bëgg a taal réew mi réew mi du woon ko réew mi du ko taal du ko naree taal réew mi tàkk seen kaw voilà lii la kon ba beneen yoon